Mesdames, Messieurs, chers internautes de la SDTV, c'est encore un plaisir renouvelé de vous retrouver ici dans votre émission Expression Directe, qui a le plaisir de recevoir Monsieur Moustapha Diarate. Moustapha Diarate n'est qu'un ancien euh, chef de cabinet du président de la République, ancien député à l'Assemblée nationale, mais jiite également li nga le groupe parlementaire de la majorité euh, de aussi membre du secrétariat exécutif de l'APR parti au pouvoir également n'est un ancien euh, ministre Le euh, président de la république mais ñu gis ne en décembre dernier il a ko jotoon limogé ginnaaw bu mu defee sortie bu am solo bi nga xamante def manifester désaccord par rapport à probable candidature troisièmement bi nga xamante ni moom président Macky Sall bëgg a amal wala mom la bëgg def ci li nga xamné moy xélu Sénégalais yi donc euh, génn boobu juraloon ko benn lu wax limogeage par décret présidentiel tay ñu am contenté ak mbégte dalal ko fi seen émission expression direct sur la SDTV monsieur le ministre ñu ngi lay dalal ak jamm sur la SDTV. Euh, asalaamaaleykum bisimilah rahmaani rahiim maa ngi lay fay di la nuyu di len gërëm ci invitation bi di nuyu wa ñu ngeen bokkal liggéey SD TV international di nuyu internautes yi euh, di ñaan yalla liñ fi wax nek wax ju lalu ci deug ta amal jëriñ askan wi. euh gis nañu barki démb le président Macky Sall dafa génn euh, def wa sortie bu am solo parce que am solo bu mu am solo mooy euh, dafa def lu ñuy wax la levée des du du couvre-feu et de l'état d'urgence ñu gisoon depuis euh mbass bi dugoon Sénégal.

Euh, li tax ma d'accord itam nag fu wër laa ko tër ndax damaa gisut lu état d'urgence bi ak couvre-feu bi jariñ ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex mbas mi parce que bu ko fàttee bi ñuy bi muy décréter état d'urgence boobu defe naa 79 cas moo am Sénégal. exactement tey jii dem nañ ba daanaka àgg nañ mille mhm. kon euh, état d'urgence bi taxul jàngoro ji wàññi ko. Mhm. dëkk yi mu tàmbali woon yokku na yi mu nekkoon yokku na. Mhm. daanaka réew mi yëpp na ko. nombre bi woppoon aussi yokku na. li faatu aussi yokku na. li nekk ci hôpital hôpitaux yi yokku nañ kon fondamentalement man personnellement euh, gaaw naa seetlu ne état d'urgence bi amul njariñ pour xeex jàngoro ji parce que jàngoro ji pour man li ko mën a xeex dëgg dëgg dëgg dëgg daal yaari yëf la rek wala yet di raxasoo sa loxo ak saabu di laal gel ak a takk masque waaye du état d'urgence du couvre-feu donc kon ginaaw dindi na ko man du ma def lu dut bég bégte ko parce que man bi ñu amee 60 jours laa jàppoon ne booba la ñu waroon na dindi état d'urgence bi dindi couvre-feu bi maintenant au lieu que gendarmerie ak police ñu di leen surveilloo guddi mbedd yu kenn nekkut ñu di leen surveilloo cette fois nit ñu takki masque parce que pour man combat bi fi mu ne li ci des mooy ñu fexe ba réew mi yëpp takki masque rawatina ci mag ñi nga xam ne jàngoro ji ci ñoom la gën a ay moo tax personnellement dindi gi moom man du du suma du suma jafe-jafe am te kon jàpp naa nag dindi état d'urgence moom jëruwul muy defu discours parce que fondamentalement discours man bi ma ko dégloo wax dëgg yàlla gisuma ci lu jaroon defu discours mën naa def communiqué rek ne le couvre-feu et l'état d'urgence levé nañ ko parce que juridiquement état d'urgence bi jeexoon na ndax loi d'habilitation bi fi mu ko yemale woon mooy 30 juin kon jëru woon wax dëgg. mais mais est-ce que ci loolu dara parce que. mbir mi dafay gën a yokk est-ce que tamit mënuñu jàpp ne tamit boobu ba léegi daf dañ doon dafa doon jël ay décisions yoo xamante ni si incompétent wala tâtonnement la ko doon defee non non xam nga en fait mën naa am na tâtonnement mën naa yu nekk yëpp mais fondamentalement nañ comprendre ne aussi jam euh, jàngoro ji bi muy ñëw ci réew mi xëy na am na luñ ci xamoon da doon jéem maintenant li nga xam ne moom laa defee ne ñun moom moo nu dal mooy France danoo wàllu tiit c'est-à-dire ñun suñu tiitaange France lañ jël defee bon évidemment tubaab bi di bind OMS di bind ñu naan Afrique ren la addunay tukki foofu il y aura des centaines de milliers de morts des pouvoirs vont tomber Lolo bi ko ñu Macky Sall déggee ñu tiit ci loolu ngay comprendre rek yow bo xamee da nga am 7 cas nga tej ci école Dema dem ba am lu mat 5000 cas nit ñu leen jang. kon ça veut dire que bi ñuy réagir bu jëk réagir wuñ ci xam-xam mais dañu réagir ci tit. Ben japp naa aussi bi nga xamé né France ñom ñi ngi wax liñ doon wax ñun ñi nga xamné ñoy ñooy xam-xam ci réew mi te jang te mbir épidémiologie ñu jang ko gëm jappena bu ñeen ci teeloon a boole yëf yu dem ni ben ñaar moy defe bu fekkon seen dañoo xool ci yeneen réew lu melni ay Corée du Sud ay Taïwan ay Singapour ak ak Hong Kong bu fekkon seen ñun dañoo xool ci ñooñu kon duñu dugg ci li ñu dugg parce que ñooñu ga am nañ ndam ci jangoro ji te nañ ko amé moy tak masque di raxat seen saabu ak ak ak ak laal parce que en réalité bu fekkee da ngay takk masque tey laal gel même distanciation distanciation physique bi du am problème parce que en réalité masque bi ak distanciation bi benn benn objectif la mooy benn ak raxas loxo yi mooy jàngoro yi du jaar dugg sa gimiñ du dugg sa bakkan masque nag boo ko takkee jàngoro ji kenn du la ko waaye yow itam doo ko kenn kon encore une fois jàpp naa ne ñun erreur bi ñu def mooy danoo topp ci France ak coow li mu doon coow ak tiitaan gi jim tiit alors que ñun suñu situation ñi ñu waroon a toppandoo mooy correcte maintenant nag le fait que li fi dee bëriwut xëy na jàngoro ji sax ni mu fi waroon a tasaaroo jàpp naa ne bokk am na élément yu war yu tax lu mel ne suñu géographie Nous mel ne suñu population je crois qu'il y a un élément qui nous ne borom xam-xam analyser expliquer pourquoi l'Afrique, pour le moment est dëgg yàlla mi parce que l'idée de l'Afrique, ci Afrique 25 de l'idée France alors que nous doon wax en ren la heureusement, il ci Afrique mais heureusement yëf yi demewut noonu et encore une fois la pour man euh, gestion bi daal dañ koo defee gestion petite. te nag nit lu mbir même si vous avez 30 jours ou 40 jours wala war ngaa xool ne ah waaw man kat est-ce que yoon wi ma jël parce que boo xoolee dé au départ ce qu'ils vont vont jël ay hôtel fay ci milliards pour dafa dóol ñoo xam ne dañoo dajeeki nit douze milliards yooyu xajoon na feneen man la 12 mars déjà j'avais dit que loolu du option bu baax li ñu war a jël mooy créer des centres des centres des centres d'internement dans les capitales régionales du Sénégal bu ñu ci defoon 12 milliards kon daañu am centre yoo xam ne ñun ñoo koy moom ba faaw 12 milliards jox koo xam ne da nga am ñu daal di jël hospitalisé alors que nit ngi yori cancer nit ñaa yori tuberculose nit ñaa yor jàngoro yu gën a bon fopp coronavirus te kenn hospitalisé wu leen kon encore une fois jàpp naa daal erreur am na ci ba tax na même population boo xoolee affaire dafa leen xaw a jaaxal ñu commencé ñoom tam di bàyyeeku mais encore une fois am solo daal pour le moment li ci des jàpp naa ne mooy ñu yittewoo mag ñi parce que jàngoro ji moom li wér mooy mag lay rey yëpp ak mag ñoo xam ne dañu ànd ko wéradi je crois que te loolu gën ngaa bari au Sénégal motuñu un million de personnes je crois que foofu a ciblé pour wutal leen ni a dimbali financièrement pour ñu moom la Sénégal war a def fi ne mais di hospitaliser nit ñi kooku moom jàpp naa ne du sotti eh, gis nañ ne au début euh, Covid bi dañoo gis réew yi yëpp dañoo préféré pour la première fois dans l'histoire de l'humanité ñu préféré

situation économique dina compliqué zéro cas loolu liko wara moy la nature de notre économie ñun suñu économie c'est une économie extravertie parce que même bu fekkoon ne Sénégal amul ben cas touriste du fi ñëw parce que tourisme mom feeg le 31 décembre du dox envoyé yi nga xam suñu mbokk dañ ko doon génne ci réew mi nga xam ne na 10 du PIB du euh bo xolé aussi li nga xamné moy les investisseurs directs étrangers kooku du daanaka dootu ñëw ñoom kenn ku ne yaa ngi toog sam réew parce que li ñu naan nu golo xam boote doomam maanaam sikkim dafa lakkandoo sauf ki la sauf ki pëla boo xoolee aussi euh, maanaam lu mel ne euh, ñun suñu état fi muy jëlee alal mooy taxe douanière ak fiscalité or avec situation bi am ci àdduna bi yëpp maanaam li daan dugg ci réew mi ci marchandise du dugg kon loolu day wàññi taxe douanière bi euh, maanaam fiscalité bi aussi day wàññeeku kon encore une fois même bu fekkoon ne Sénégal dafa amul zéro cas situation économique bi dina dina jafe rax ci dol nag mu am zero mu am ay cas moo tax ma japp ne départ bi ñun leen ñu waroon a góorgóorlu mooy fexe ba andi gi feebar ba law ci réew mi fofu la gouvernement bi échoué parce que ñun un man nañu fexé ba jangor bi du ñew ci réew mi wala boog bu fi ñew du bari lu tax ma wax lool moy biñu ko biñu tejé aéroport kenn dugatul déggatoo ka importé ka importé yoy ñi doon ñew ño fi bayyi ka contact ak ka communautaire kon buñu téron tej frontière bi teel tej aéroport bi wala bok ku ñew ñu testé la bu fekké da nga feebar ñu ñu yóbbu la ci hôpital ñu faj la kon jàpp naa ne quatre-vingt-cinq personnes duñ ci dugg indi jàngoro ci réew mi kon loolu bu fekkoon ne defoon nañ ko bii des mooy bi nga xam am na dëkk yoo xam ne fa la jàngoro ji feeñe suñ fa teeloon dem confiné leen kenn du fa dugg kenn du fa génn pendant soixante pendant quinze jours jàngoro ji foofu la yem kon encore une fois ñun dañoo raté l'endiguement maanaam fexe ba jàngoro ji ba a dugg ci réew mi bi mu duggee ba noppi aussi dañoo fexe dañoo raté nuñ ko waroon maanaam réprim maanaam jël matuwaay ba ba ko ba du ci biir réew mi mais loolu nag ginnaaw am na ba noppi li am li des mooy fim mu nii moom mooy fexe ba mag ñi mucc ci Je mais ok chers internautes je rappeler que vous a ngi chaîne SDTV c'est une émission expression direct, am suis content dara ki nga euh, l'ancien chef du cabinet du président de la république mais aussi que aussi ki nga député de l'Assemblée nationale monsieur le honorable député dans nos guises récemment chaque jour il y a presque une dizaine de jours la question foncière doit revenir euh, mu def totalement le tour du Sénégal euh, Fanny passé gis nañu fële sen ñu gis né l'homme d'affaires euh, monsieur Babacar Ngom ñu ko ci ay ay hectares yo xamanteni da am nous Nous ci village ñu ñu ñu dégg ci aussi ci que c'est le président de la République mom def décret présidentiel pour daganal

ñi sañ a joxe suufu domaine national mooy conseil ruraux yi wala conseil communaux yi nekk ci fa suuf sa ne te xam nga kenn rek lañ ko sañ a ñeen wala boog ñenn rek lañ ko sañ a jox mooy ñi dëkk ci gox ba kon ginnaaw président de moom du conseil du conseil municipal euh, ki mu ko jox du dëkkul ca gox ba bañ ko joxe suuf si président de la tooñ na conseil municipal lu Ndingler wala wala beneen dëkk bu mën a doon ndax daa jël si seen pouvoir te waru jël parce que domaine national kenn du ko maye domaine national kenn du ko jaay domaine national kenn du ko defar titre foncier di ko jox un individu kon jàpp naa ne foofu bu amee ku ñu war a wax moom moo moo violé la loi sur le domaine national loolu man mooy ci sama position Babacar mu ah, du ma ko jox président république moo def lu mu wër sa def kon bu ñuy wax nañu wax président république

c'est-à-dire président de la République mu violé la loi loolu moo garaaw te dans cette affaire c'est le président qui a violé la loi donc il faut pas que ñu singali Babacar Ngom bàyyi président de la République yomb parce que loolu bu ñu ko continuer def dana tax président bu ëllëgee mu defaat li def li mu il faut que nit ñi xamal ne ko li nga def xam nañ ko te waroo koo def te bu mu ñaar loolu man la man mooy sama position parce que Babacar Ngom joxul boppam suuf si ki ko jox te waru ko ko jox ki ñu ko jox te waru ko ko waruñu ko jox ko ki ko jox te waru waru ko waru ko ko jox kooku moo def musiba bi tey bo boo demoon laaj grande mosquée da nga bëgg ñu mel ko iliman man la ko jox parce que xam na ne waru la ko jox non attitude bi président bi bi imam bi am ci grand mosquée wala mosquée bu mëna don bo attitude le président de la république wara am ci suufu domaine national suufu domaine national président de la république sañu ko jox kenn pré euh, suuf suufu domaine national képp ko xam ne da ko ci commune ba suuf sa nek waroo fa am suuf wa légui léegi en tant que ki nga xamanteni yag nga côtoyer le président de la république du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall nag dang ne

ok euh, mais Denis encore sur cette même question foncière mais dañuy politicians, les hommes politiques sénégalais pour la plupart en tout cas ils question rare est-ce que aussi en d'autres termes en quelque sorte euh, connivence par rapport à ce que y' a deux types non y' a trois y' a trois types de personnes. Sénégal muy les politiques wa impôt domaine ak homme d'affaires léeg-léeg sax ay serigne rax leen ñeent ñi foo fekk suuf coow am fa rek seen loxo dana dana ci dana ci lëjj ba taxna tay tey Sénégal yi néew doole mom amuñu amuñu ben amuñu souf Sénégal limuy reuy reuy li fi am titre foncier mu tudd cent mille pour une population bo xam xeyna ñi wara mëna am kër mën na millions de personnes ça veut dire que kon ab nombre bu néew. Nous, àkki moom Sénégal titre foncier effectivement il y a une collision il y a une connivence entre les politiques le, personnel des domaines le, domaines certains opérateurs économiques des hommes d'affaires et euh, parfois des chefs religieux Nous avons une collusion collision

jàpp naan du loolu taxut bari na ñoo xam ne dañoo bëgg a jiite dañoo bëgg a jiitu ngir defaroo ci askan wi waaw moo ci ëpp. il se serve au lieu de servir. waaw mooy defaroo loolu mooy réalité bi xam nga euh, gis nga ñun waa Sénégal euh, fii la gën a manqué ci réew mi te réew mu manqué bu ne day am jafe-jafe mooy la conscience citoyenne loolu mooy lan de citoyens conscients et exigeants xam li nga xam ne moom ñoo ko moom xam lan mooy seen wari ba képp ku ci laal lu tolloog tarfatal amin ñëw defante ko yow loolu nag lu fi yàgg la parce que nag bul fàtte réew moo xam ne dafa amoon traite négrière am colonisation tubaab bi nekk fi not nu bi fi ñoom Senghor toogee daanaka fab ay lëndëm dugal ko ci bopp nit ñi ba daanaka xamuñu dara loolu moo tax sénégalais maanaam conscience citoyenne bi nga xam ne mooy tax aw askan taxaw ba buñ ko tegee lu war a tegu mu jóg dal ci kaw kii ko teg loolu manque fii Sénégal loo ñu ne garaawut nañ ko bàyyi yàlla lu waaye muñ dina jeex voilà xam nga yooyu yooyu mom baxna xeyna pour àllaaxira waye aduna bi mom kep ko xam da nga la def lu lu jaaduwut da ngeen ko wara a euh ci lolu on va toujours dañuy dañuy des euh, encore si li nga xamante ni moom mooy euh, le Covid 19 mu mu nekk je pense bien pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité mais ñu gis ne bu mu amé ci monde bi rawatina ci Sénégal population yi dañuy dañuy impacté psychologiquement financièrement socialement mais aussi économiquement loolu mo waral ba président dafa dellu si ginnaaw par rapport ak euh, ndogal yu mu jëloon mais tey gis nga ne aide alimentaire bi nga xamante ni moom la président euh, joxe woon di joxoon digal pour mu jàppale ko askan bi mais est-ce que loolu mën na nekk moyen boo xamante ni dafay faj wala dalal xelu ñi nga xamante ni ñoom ñooy de population surtout ñu nekk en situation aussi précaire. xam nga euh, xam naa ne maa la magee fan. gis nga waaye waaye li ma la bëgg wax yaa ma gën a xam nga ko ni ma ko xamee 1960 ba léegi gisaguma Sénégalais bu fi dee ak xiif man personnellement yëgaguma Sénégal yoo xam ne dañoo dee ak xiif. mais ñu ngi xiif quand même. ma ñëw rek bu ñëwee bu ma waxee bu ma bëggee xam nga lu ma bëgg a wax léegi fukk téeméer euh, fukk ak juróom-benn nit nañ ci coronavirus. kon Sénégal amul problème mu xiif. problème mu coronavirus lañu am. xaalis bi président ci def ceeb. néew ma ceeb baaxul joxe ceeb baaxul. Mhm. lam ci waroon def mooy xeex. xeex jàngoro ji parce que tant que jàngoro jaa ngi fi am jafe-jafe yi tax mu joxe ceeb dina am te dana dem ba yàgg dut am ceeb bu mu joxe kon li mu waroon def ci mille yi ne da koy xeex jàngoro ji li mu ci waroon def mooy wut ci moyens yoo xam ne sénégalais lañ ci mën a aar seen bopp te liñ ci war a aar seen bopp xëy mille milliards xëy ëpp na ci loolu la masque la gel ak saabu ndox tey jii Côte d'Ivoire boo demee Abidjan vingt cinq millions de masques le président euh, Alassane Ouattara joxe waa Abidjan

joxe nañ ceeb bi ma démb la Mansour Faye ne les deux un tiers ñoo jotagul teñ ne woon aide d'urgence la léegi dem nañ ba ne le 15 juillet lay jeex koo xam dañ koy dimbali maanaam pour mu bañ a dee mhm. mu dem ba man ñaari weer kooku jàpp naa loolu loolu erreur la bi ci des nag mooy erreur bi ñu commettre dëgg-dëgg ci dund bi mhm. mooy au lieu ñu jox nit maanaam ñu continuer ñu dañoo continuer ci mooy yi ñu daan def bu njëkk mooy di séddale ceeb mhm. président bi génne palais dem dem dem dem port ñu diko won muy muy muy muy def la revue des sacs de riz nga xamné lolu loolu lu kiimaan la 60 ans après l'indépendance Sénégal di importe ci bu diko jox ay aw askanam c'est un vrai problème mais su fekkoonte ne dañu utiliser xarala yu bees yi muy transfert d'argent yi kenn ku ne ñu identifier xam sa numéro téléphone ak sa numéro carte d'identité yone la li la yone lolu benn mo gëna gaaw bi ci dess moy am appel d'offre am transport mais mieux ak sutura ñu ne li mieux boo ñu la yónnee xaalis bi sa koñ nga dëkk euh, nu mu tuddati euh, nu mu tuddati bon bokki Jawe wala nga dëkk Matam. wala jëma ceeb yi. wala jëma ceeb yi. c'est-à-dire bu ñu la yónnee xaalis bi xaalis boobu ceeb euh, ko économie ba ca local localité bi nga koy dépensé maanaam da nga ci jënd. ceeb ca koñ ba da nga ci jënd suukar ca koñ ba. Mhm. dang nga ci jënd yoo xam ne ca koñ ba nga koy jëndee. kon loolu bu ñu ko defoon naka ni fekk ñun ñëpp jot. Mhm. mu tasaare ko ci biir réew maanaam mu nekk mu développé économie. Mhm. mais li gën a garaaw maa ngi dégg ministre bi maanaam non bu ñu ko joxee bu ñu ko joxee borom kër yi bu ñuy jox xaalis bi dañ loolu saaga la Sénégal borom kër yi xaaruñu état bi pour jox seen njaboot dépense. Mhm. loolu doo ko teggin wax bu ñàkk kersa la Sénégal 1960 ba léegi borom kër yi ñu ngi koy joxe dépense kañ la leen état mos a jox lu lu lu ñu jëloo ba nga naan su ma leen joxe xaalis dañ koy lekk aw askan kenn du ko xeeb aw askan kenn du ko woyofal fii ay xar dëkk fii ay nit a fi dëkk ça c'est inacceptable. mais est-ce que est-ce que nga baal ma ci li ma la dox ah, parce que li nga wax nii ah, moom mi may dégg moom xam naa ne. mais li nga wax nii comme comme ay précautions yi waroon jël. mais moom soxla ko soxla ko li ma koy wax mooy président bu dugg ci lii. su ma fa nekkoon bu dugg ci di joxe ceeb d'abord un ceeb bi ki ki ko jaay waru koo jaay d'abord du jaay ko te ceeb am naar lañ ko jox en réalité naar bi ab tubaab ñu ko marché dix huit milliards ko du jaay ceeb ñu jox ci keneen ñu jox ko diw gi koo xam ne loolu du liggéeyam ab député boo xam ne moom état waru ko jox marché ñu jox ko marché ñu dugal ko ci camion mbalit ba mu daanu vous croyez que loolu jekk nañ ci Sénégal man li ma jàpp mooy lu baax la ci bëgg waaye yoon bi mu jaar yoon bu baax. gis nga nag loolu ko teg mooy gis nga bu fekkee da nga ànd xam ne ay siboorukat lañu. loolu lu neex sa nopp la ñuy la ñuy jéem a wax waaye duñu wax loolu la am njëriñ lu mel nii rek moo koy dal. un dépensé na xaalis yu bari ci dund bi pratiquement du am benn njariñ ñaar dépensé nañ xaalis yu bari ci héberge ay ñoo xam ne dañoo wopp ñu da leen dal ci ay hôtel 12 milliards bu fekkoon te dañ jet tabax liggéey centre technique dans les régions du Sénégal kon loolu day des ci àlalu réew mi kon encore une fois mille milliards bu ñu deful ndànk dana ko dépensé ba mu jeex te te jàngoro ji des fi ta la taxoon fam ko dugal du fa am benn njariñ loolu c'est ok je euh, ngi chère cher internaute Vous avez vu cette chaîne la SDTV c'est une émission explosion directe suis contenté ak honneur dalal ki nga l'ancien chef de cabinet du président de la république son excellent monsieur Macky Sall est aussi parlementaire à la à nationale nekk est aussi ki nga euh, euh, groupe parlementaire Benno Bokk Follet assemblée nationale. honorable député euh, barki démb le président Macky Sall ci discours am toujours dañuy noté wu ne noté ne que ne euh, dafay tijji les frontières aériennes mais aussi terrestres bu 15 15 juillet bu jotee dinañ tijji euh, bunt yooyu yëpp maanaam jaww ji ak yoonu est-ce que loolu tamit nekkul une certaine exposition boo xamante population dañ koy couvrir par rapport ak cas importé yi nga xamante ni moom moo indi cas communautaire ak cas contact en tout cas pour man ça ne me gêne pas ñu ubbi frontières yi. Euh, l'essentiel mooy kuy dugg ci réew mi ku ne nañ la teste ba xam yaa yor nga jàngoro ji wala yoroo ko or jamono ji ñu am na test yu gaaw yoo xam ne en moins de d'une demi-heure mën nañ laa test xam jàngoro ji mi ngi cee wala déet c'est-à-dire en moins d'une demi-heure mën nañ la ko mën nañ ba xam ndax yow yaa ji yor nga ko wala yoroo ko moo tax ma jàpp ne ñaari mesures la war a jël mooy tous les postes frontaliers yi ñu teg fa ay ay dispositifs de test kuy ñëw ci bu dee frontière terrestre yi ñu testé la su fekkee da ngaa yor test da ngaa yor jàngoro ji ñu isolé la bu fekkee yoroo ko ñu bay la nga dugg bu dee aéroport it wazalika naka noonu képp koo xam da ngaa wàcc aéroport bi ñu testé la bu fekkee da ngaa yor feebar bi parce que feebar bi ñaari façon la koo xam ne xëy na feebar bi gannaaw a ñooñu ñuy wax asymptomatique nga xam ne jàngoro ji duñ ko yëg loolu boobaa képp koo xam ne wàcc nañ ñu testé ba xam boo fekkee da ngaa feebar ñu isolé la ñi feebaru ñu bàyyi leen dugg jirém pour man ça ne pose pas problème maintenant su fekkee ne dañu ubbi frontière bi rek mu nekk su mbuxloo su mbuxloo ak foo neex waaye jaar dugg ci réew mi kooku moom bu ñu deful ndànk jàpp naa ne néewuma maanaam waan mooy le berceau de le berceau du du coronavirus waaye bu ñu deful ndànk Sénégal gi nag moom mooy doon ajjanaam euh, euh, euh, waaw <laughs> dana fi yéex a jógee moom ah déet bu Sénégal ni nuy doxale ni ku ne nan ma tay nit ñi nanguwuñu tak masque ko wax mu nan la man ñi nan gëwuma ko ñi naan non yalla yàlla du bind rey. voilà ñàkk gëm bobu tamit est-ce que nekul communication bi nga xamanteni mom le état waroon am par rapport ak population mom est-ce que nekul mom manqué parce que gis nañu fale ci Tivaouane xalif général bi dafa wax né euh, état bi dafa démissionner on dirait donc par rapport ak comportement bi mu doon xaar ci état. mais ak dafa dafa def benn relâchement quoi. oui en fait le problème gën naa gën naa xóot sax démission état xam nga sama sëriñ fii Sénégal lépp ci nit ñi bu ñu woppee ñooy yóbbu seen bopp sax dispensaire suñ demee dañuy fay ticket buñ neen consulter ba na bindal leen ordonnance ñoo koy fayee seen bopp loolu la Sénégal yi def depuis 1960 ñu xëy xëy ne la wopp ji ñëw nag moom boo woppee da ngay toog sa kër woote ñu jël si la daañu la faj te doo te doo fay dara. sëñ bi loolu dal ñu def ci cinquante milliards selon le ministre te siburu gën koo garaaw fopp te kenn def ci dara cancer gën koo garaaw diabète gën koo garaaw insuffisance rénaux yi nekk fi c'est loolu dafa jaaxal nit ñi non non c'est affaire non waa yàlla di mais sénégalais yi noonu lañ ko mën a gisee parce que koo xam ne mosul lijjanti say mbir xëy xëy na la nag tey wopp ji moom bu la dalee danaa la jël sa kër danaa la dugal ci hôpital danaa la faj ba nga wér te doo fay dara xëy sax booy gën a mayalee la xaalis dafa dëlatul xam nga lan non ci fekkoon ne xam nga lan ma am solo dama la sax ne la euh, fii ci Sénégal état bi dafa dafa dafa téye loo xam daanaka ci askan bi seetaan leen daanaka lu fu waay am rek yaa ko may sa bopp euh, loolu nag lan lay wàññi mooy mi ngi mel ne nga jënd sa arme arme bu bees bu baax am sa autorisation de port d'arme yëpp nga am ko waaye arme bi jëndaloo ko bal bis bu la saay-saay songee rek boo génnee sa fetal di nga am lu naqari donc xam nga li may wax toujours bu fekkee da ngaa yorum réew wala même sa njaboot da nga war a fexe ba li nga leen di digal ñu xam ko boo leen ko digalee ba noppi ñu attan ko buñ ko attanee ba noppi nangu ko buñ ko nangoon jëfe ko li feeñ ci coronavirus bi mooy mel na ne gouvernement bu Sénégal wax naa nit ñi nit ñi xam nañ ne jàngoro jaa ngi fi waaye nag danger bi ci jàngoro ji gëmuñu ne li gouvernement bi wax dëgg la loolu nag c'est un problème extrêmement sérieux parce que nag am réew bu demee ba ñoo nga xam ne ñoo fa dëkk gëmatuñ ña ko yor ci politique boobaa day compliqué maintenant pour man li ma jàpp mooy euh, li naan cin bu euh, të bax ne lañ koy xambe su fekkee gouvernement bu waxee nit ñi duñ ko dégg jàpp naa ne am na Sénégal yoo xam ne ñoom bu ñu waxee Sénégal dañ leen dégg kilifa yi diine man de gëm naa ne sëñ Mountakha bu ñu fexewoon génn ci làmmiñam ne bépp murit bul génn sa kër sa ko masque yaakaar naa ne kenn dutu gis murit bu takkul masque jàpp naa ne loolu bu ñu ko laajoon Imaamul Mahdi waa Laayeen xalifa bi wax ko jàpp naa ne Laayeen yi ñoom daañ jënd masque bu ko waa Tiwaawoon waxee jàpp naa ne tijaan yi daañu jënd masque boo demee euh, nam tuddati Njaasaan nga dem kër ma Abdoulaye Niass ca Kaolack wala kër Cheikh Ibrahima bu fekkonte ak ak jàngo bi bu fekkonte ne kilifa yi ñoo jëlal seen bopp en charge le port du masque jàpp naa ne résultat yi muy am mooy ëpp doole yi nga xam ne moom la état bi def benn tey ji Sénégal réew moo dem dëkk boo dem boo da nga fekk quartier quartier boo ne dem da nga fekk ay ASC jàpp naa ne Sénégal gouvernement waroon naa mobiliser ASC yi quitte à ce que sax ñu leen fay pour ASC bu ne sab koñ ñu dénk la ko jox la ay raxasukaayu loxo jox la ay masque jox la ay gel ñu dénk la sab koñ nga ne sama koñ bii jàngoro du fi dugg jàngoro du fi génne su ko defee eh, xale yi seen bopp ñooy surveiller seen bopp seenu koñ defe naa loolu buñ ko ko defoon ba Sénégal gépp daj yaakaar naa ne léegi jàngoro jógee fi kon encore une communication bi baaxul xëy na ki communiqué moom la ñu gëmut li muy wax wala ni muy communiqué moom la ñu xamul waaye man jàpp naa Sénégal am na fi ñoo xam ne muy serigne ci muy ASC yi muy bàjjenu gox yi muy délégué de quartier yi muy ilimaan yi ak ulamaaw yi yaakaar naa ne bu ñu leen gënoon a impliqué ci xeex bi kon defe naa ne kon duñ toog trois euh, ba nëgë ni ñu door am jafe. mais mais li nga wax ni dafa am solo lool mais est-ce que tamit euh, mënuñ ci jàppee ne euh, état maanaam état dafay dafay def rupture par rapport ak lien social wala lien de confiance bi am wala bi war a am entre moom ak population yi parce que bo demee ba bo jité ñi nga jité bo waxé duñ la gëm wala soo leen santé duñ le duñ ko duñ le duñ appliquer mais fofu y a un problème. oui en fait lolu bo do boo dee déglu dëgg nit ñi da nga koy dégg ñaan euh, politique day melni ne woto bu paan boo poser bam tak rek mu dem lolu ben xam nga da nga dégg Sénégal diko wax bi ci res moy sénégalais yi jàpp nañ ne politicien lu mu wax du deug ñaar sénégalais japp nañ ne politicien lu ngeen seq mu nax la. ñett Sénégal jàpp nañu ne politicien kees gu mu jekk këpp ko. parce que danoo yàgg naxee di këpp rek. très bien Sénégal yi dañ leen a naxa naxa nax ba dem nañ sax ba bëgg ku leen di nax kon nit ki xam dañoo ko dalaa dalaa yàgg nax bis mu xëyee ba bëgg laa wax dëgg day jafe kon encore une fois ñun ñoo war a xam benn war nañoo rendre compte ci ne effectivement nit ñi gëmu nu war na noo soppi suñu doxalee nag askan bi waaye nag ginnaaw nit ñu gëmuñu nu te xam nañ ne jàngoro ji même même fi c'est très dangereux nan fexe ba ñi nga xam ne ñoom réew mi gëm nañ leen muy kilifa yi ñu jox leen kaddu gi ñu jiite combat bi man gëm naa ne ca départ ba bu fekkonte ne dañoo jiital kilifa yi ni ñu leen waroon a jiitalee xam nga mun Muntaxa bi mu deux 200 millions su euh, loolu rek déjà si si siñ bu am solo la man jàpp naa ne foofa le président bi waroon na buruxlu pour fexe ba combat boobu combat nit ñi takki masque ci réew mi yëpp sëñ Muntaxa sol ko man gëm naa ne bu fekkonte ne moom daa sant borom tarixa yi kenn ku ne sa tarixa mun ne nan fexe ba benn taalibe bu mu faatu ci mbas mi nañu takk masque tey laal gel man gëm naa ne murid yeeg wala tijaan yi wala laay ku doon war a dagg sam nopp pour jënd masque da nga dagg da nga dagg sam nopp te te ñooñu tamit pour pour ñu joxe ndigal il faut ñu xaar président wala déedéet mën nañ ko bañ a xaar parce que aussi damay jàpp ne ñoom mhm. la Sénégal yi dénk seen ruu parce que na Sénégal yi damay waxtaan ni bis bu 4 avril bis bu 4 euh, avril daje woon a gam gàmm. màggal wala gàmm. dina xumb <laughs> kon défilé ba du xumb du bëri nit dëgg loolu dëgg. exactement bis bu daje woon a mhm. du bëri kon encore une li wér mooy Sénégalais yi am na kër yu ñu dëkkal seen bopp. Mhm. am na ñu dénk seen bopp am na ñu ñuy déglu. Mhm. kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yor réew mi te bëgg a wax ak askan wi. danoo war a jël ñu am woyof bu toll ne ñu jox ñu ñu ñu déglu leen maintenant nag kooku buñ fi yem. li ma jàpp mooy bu yii weesoo. parce que c'est man leçon bu ma tiré la mooy wax nañoo seet kilifa yi diine yi. ulamaaw yi ak élimaan yi naka lañ leen war a gën a boole ci la marche de la république. parce que fondamentalement dafa am loo xam ne 1960 dafay am. Senghor bi ñu ko joxee réew mi li mu waxoon kilifa yi mu fi fekkaloon. daf ne leen moom affaire république seen yoon nekk yéen daal toog leen di tudd gone yi. diine bi di jullee néew yi te dinu ñaanal. man jàpp naa ne place su xaj tarixa yi ëpp na loolu. place tarixa yu leen président la di yónni dañ leen war a gën a dugal ci doxee parce que nit gëm nañ leen mhm. man jàpp naa loolu moom lu ñu war a lu a jublu la lu ñu war a jublu la mais ñi si jiitu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy homme politique yi ah, parce que nekkoon nga nekkoon nga euh, nekkoon nga fële ci assemblée national ñu xam ne foofu la ñuy nasee lu bëri mhm. eh, lu tax li lii nga wax ni jotoo ko proposé li nga xamante moom loolu yàgg naa ko def man bi ma jege bi ma bi président fal li ma ko créé mooy tënk tàng boo xam ne ay borom xam-xamu diine ñoo ci nekk hmm. ay borom ulama ay docteur borom ay xam-xamul islam ay savant. Hmm. pour ñu di ko xalaatal ci naka lay war a yore réew mi bu amee lu na nasaru suñu xool ba xam ndax l'islam gërëm na ko wala gërëmu ko. Hmm. man damaa gëm ne effectivement l'islam niñ ko place bi ñu war a jox wala créé wala diine ci république bi des na loolu nag la nga mën mooy wax ko yoon wi waaye nag def gi président léegi léegi proposition yooyu wala centre de réflexion yooyu est-ce que jot ngeen ko yoo xam ne daanañ ko jox ay daanañ ko jox ay xalaat mais gisuñ gisuñ mu am production bi ma waaw loolu nag moom kooku dama foofu laa ci mën a yem xam nga li ma mën rek mooy xalaat naa ne ci jamono jooju bi mu toogee rek li ma ko jëkk a jàpp ne war naa fexe ba lépp lu muy def rek mu xool ba xam ndax l'islam gërëm na ko wala gërëm ko pour nga xam loolu nag ne l'islam gërëm na li muy def mooy foog nga dajale boroomi xam-xam ñu di la conseiller te doo koy dara parce que man maa luye woon siège ba équipé ko ay boroomi xam-xam di fa ñëw di ko naccal mais malheureusement euh, yëf yi mujjul mujjul sotti bon loolu que nekkul la charrue avant le bœuf aussi parce que constitution du Sénégal boo bëggee euh, dawal li nga wax nii moi da ngay commencer euh, problème bi. à la source parce que. nous sommes d'abord une une république laïque. non non non non loolu du affaire du conseil xam nga euh, Sénégal euh, c'est la république du Sénégal qui est laïque mais le Sénégal n'est pas laïque. te jàpp naa ne ñi ma xam ci réew mi te ñu boroomi xam-xam. Mhm. gisuma ñuy doxal loo xam ne day gàllankoor laïcité. Mhm. waaw mais l'essentiel bu fekkonte ne parce que lii nu lii nuy wax ni c'est-à-dire li xew ci mbas mi nii. Mhm. su fekkonté né ba né keut kët dem né ci dañ ñat ñi si ñi jappalé président ci xalaat mhm. dañ ko waxone ko solo sam dal seeti privé diiné parce que ñoonu ci mëna a xamul tax mhm. ginaaw fébar bi mom amul garab koy fajj mhm. amul ñak wuy tax nit mucc kon en réalité fébar bi du problème ko docteur fébar bi ginaaw lén mo ci tax mëna a mucc moy nit ñi di raxaso saabu di laal gel ak tak mas kon affaire comportement lay doon

wan nañu d'abord suñu suñu suñu faiblesse suñu école suñu fajukay suñu njàng mettre al à nu toutes nos faiblesses pendant 4 mois comme ningo waxe ben président de la république guen tabis bu yalla sak ñu nek ci avion di war war di ñu gëm lañu dañuy wuti alal ko indi ci réew mi en réalité dañ doon taxawal nit ki mën na coopérer di wax ak ay chef d'état do tal roplan kon encore une fois effectivement lima japp moy ñun man dama sax wax ne 1960 2020 euh, pardon daa waroon nekk année boo xam ne dañ ciy def in une année d'introspection nationale pour xool ba xam 60 ans yi ñu dox ndax baax na wala baaxut ndax dox bi baax na wala baaxut euh, malheureusement defuñu ko waaye jàpp naa ne coronavirus moom defal nañu conférence nationale defal nu assise nationale defal na nu dialogue national wan nañu suñuy faiblesse wax nañu ni ñu war a def kon encore une fois ñun ñoo war a am mat bu toll nag def un nouveau départ pour l'Afrique Et j'ai l'impression que nous risquons de rater encore un grand tournant. Parce que tay coow li lan la wax moy nañ ñu baal suñuy bor Lolu gàcce la Liñ wara def moy ñun fexé ba teug benen Afrique Tay ji Corée du Sud Taïwan Singapour boo fa demee dara amuñu ko mais lepp dañ koy transformer Afrique Sénégal am lepp te duñ transformer dara ñun lolu ci lañ wara joggé. Tank ñing tant que ci nekk nak dañu continuer di yalwaan yi te loolu moom jàpp naa ne euh, nous ne le méritons pas parce que les ressources yi ñu Yalla jox. jàpp naa ne bu ñu ko exploité nañ ko war a exploité maanaam daanu jóge ci ba faw ndóol sunu askan daanu jóge ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund. honorable député ñu ngi ci fin émission bi di la wax nga tàggatoo ak lan ngay jagleel ñi nga xamante ñoom ñoo ñuy seetaan mais aussi ñi ñu jiite par rapport ak gestion Covid bi. waaw Covid bi moom ci laay ci laay tàmbalee moom laay mujjee mooy damay wax ñëpp ne pour le moment moom yenn débat yi sax jaratu ko nan fexe ba mag ñi ñu gën leen a aar parce que ñoom la gën a aay ak ñi feebar aar gañ leen di aar nag la ca jiitu mooy ñuy rax ñuy am gel di ci raxas seen loxo pour jàngoro ji bañ ci takk ñuy raxasoo saaboog ndox pour jàngoro ji bañ a takk seen i loxo ñuy takk masque pour jàngoro ji kenn du leen ko mën a wàll mais aussi duñ ko mën a wàll kenn jàpp naa ne loolu kenn ku nekk ci ñun war naa fexe ba këram loolu nekk fa règle mag ña di sol yi masque ku génn sol masque booy gën booy dugg si takk raxas say loxo bi ci des mooy nañu xam ne lii jàngoro ji c'est jàngoro la c'est une waaye wan nañu suñuy faiblesse li nga xam ne ñun war lañu war def mooy tabaxaat beneen yoon wu weeroo xam ne ci la ñu jaarale suñu yoon Afrique yi ba bu ñu demaatee 60 ans ci kanam situation bi nga xam ne ñun ñu ngi koy dund tam jógee 1960 suñu doom wala suñu sët yi ñu nar remplacer ëllëg ko dund kon encore une fois c'est vrai c'est dur maa ngi masawu sénégalais yi ñi faatu maa ngi leen ñaan yàlla xaar leen àjjana ñi faatu maa ngi leen di jaale ñi tëdd ci hôpitaux yi maa ngi ñaan yàlla mu yëkkati leen waaye nag nanu xam ne maanaam feebar bi garaaw na waaye nag buñ ci jógee war nañu mën a am départ boo xam ne départu ponkal lay doon départu jambar pour jafé jafé yi nga xamné mom moom la Afrique am ak Sénégal loolu ñu mën cee génn. ok chers internautes de la SDTV ça a été un plaisir de vous présenter cette émission Expression Direct sur votre chaîne la SDTV comme ni ñu ko waxé ñu ngi leen di ñaan ngeen di gëna a euh, raxas seen loxo di gëna utiliser gel di gëna mais limiter aussi sen déplacement aussi di def kenn seen kéemtulaay kattan. Arsène Bob parce que aar Bob moy Ars aar ñi nga donc ci lolu aussi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox di leen dik dajé ci yenen jamono ci benen numéro avec benen invité merci